Le métier que j'aurais aimé faire si ce n'était pas dans le sport, probablement que j'aurais voulu être enseignant puisque c'est un métier que je trouve très noble, c'est un métier auquel j'ai rêvé déjà tout petit puisque j'avais créé une espèce de petite école euh, à mon domicile euh, quand j'étais tout jeune à Dakar, euh, servant à donner des cours à des jeunes pendant les vacances. Et aujourd'hui encore, je suis euh, toujours dans une sorte d'enseignement, puisque je donne des cours à l'école de journalisme et de communication que Franck Papazian et Jean-Pierre Foucault et moi-même avons créé, avons mis sur pied à, Marseille. Donc oui, je pense que euh, si je n'avais pas fait le métier que, les métiers que j'ai fait, j'aurais sans doute euh, être euh, enseignant. voix bi askanu Sénégal dootuñu ko dégg mukk ci Canal Plus Pape Diouf mi fi nekkoon président Marseille moo faatu ginnaaw bi ko feebaru coronavirus tërale ay atam tolloon ci 68 ans Pape Diouf jotoon nañ ko placer assistance respiratoire foofe ca hôpital bu Fann ci ginnaaw bi sax ay mbokkam ak ay jegeñaaleem sàkk woon ci ñu defal ko ab rapatriement foofe ca France ngir mu fajoo ji fa waaye nag mu mel ni ndogalu yàlla moo mujjee ñëw Pape Diouf génn na àdduna moom mi nga xamante ni dundam gépp mu ngi ko amal diggante Marseille ak Ndakaaru feebar bi di coronavirus mi ngi ko gañee nekki samedi gi nu génn loole waraloon ba ñu hospitalisé ko foofee ca hôpital bu Fann moom mi fi nekkoon candidat ci élection municipale ca Marseille ca atum 2014 naroon na dellu jiwaat ca dëkk bu nga xamante ni foofee la màggee ngir dem fajoo ji fa loole ginnaaw ba ambassade bu France yónnee ab avion ngir ñu fas yéene woon ko yóbbu foofee ca Nice mu àggalee fa fajom waaye nag muy mel ni jaam ak pexeem yàlla ak dogalam Pape Diouf mujjeewul dugg ca boobule avion ndax laata muy dem rek la ko feebar bi gën a attaqué ci la yàlla jaar moom ko xibaar bi ki ko xamle di kenn ci jege ñaaleem bi la nouvelle nag nekk lu tiis loolu ci bépp sportif boo xamante ni yaa ngi doon seetaan football rawatina ngay supporter olympique marseillais Pape Diouf mi ngi juddu ci atum 1951 foofee ca Tchad waaye nag mi ngi gënoon a ràññeeku foofee ca réewum France ndax bëgg ki nga xamante ni bëggoon na ko football ginnaaw ak ndawam Sénégal Mababa Diouf di ab turam dëgg bi muy am lu toll ci dix-huit ans ca la daal di dem foofee ca Marseille ca noonee nag mu daal di xam ni destin moo di nekk foofee ca Marseille Pape Diouf nag bi mu agsee ca France kii di waajuram bu góor dafa bëggoon mu daal di def service militaire maanaam dem sa l'armée ba waaye nag mu mel ni décision boobe la mujjut àndu ndax Pape li mu bëggoon moo di àggale ay njàngam waaye nag mujjantal gi ca PTT fa la Pape Diouf di commencé ak dundam foofee sax ca la dëgg-dëggi dundam daal di tàmbalee lu toll ci fukki at ak ñaar Pape Diouf def na ko ci magazine sport bi en tant que journaliste mu bind fa ay article yu bëree bëri naaw méccam journaliste bi Pape Diouf dafa mujjee woon sax nekk ab agent joueur waaye nag pas n'importe quel agent joueur ndax jot na liggéeyak ay joueurs yu siiw a siiw ku ci mel ni Basile Boli Marcel Desailly Bernard Leman William Glass Didier Drogba wala sax Samir Nasri ñoom ñi leen ñëpp Pape Diouf jot na leen a fu nekk ci wàllum sport ginnaaw métier agent joueur bi mu daal di suivre même logique ci milieu football bi waaye foofee ca Marseille ci atum 2004 ci la daal di rejoindre équipe bi di Olympique Marseillais yoroon fa poste directeur chargé des affaires sportives sportive ci même année bi ci la Pape jouf nekk président di directoire bu équipe bi di Olympique Marseille boobule poste nag dina ko occupé ci atum 2004 ba atum 2009 période boobee nag li ko gën a marqué moo di ràññeeku gi nga xamante ni Olympique bu Marseille mujjee woon na ko ràññeeku loole foofe ca France ci atum 2010 nag ci la Pape jouf dal di dellu si waat exercer métier bi nga xamante ni moom la gën a bëgg moo di journalisme waaye tamit jot naa nekk actionnaire ci European Communication School di ab école buy jàngale wàllum journalisme foofee ca Marseille ci atum 2012 ci la ko président François Hollande dal di nommé chevalier de la Légion d'honneur lile di firndeel rek ni Pape Diouf c'était une personne la xanaa ñu koy ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fi mu jógee